voilà yàlla suturaal nañu ñëw nañu fi ziyaar ziyaaraat sunu sang bu tedd bi voilà lii la olof di naan chance moo gën licence ziyaar nañ ko ñaari yoon yàlla suturaal nañu tey ci bés bi ziar nañ ñaari yoon sang bu tedd bi alayhi salaatu wasalaam lépp lu ñu fi ñaan yàlla nañ ko suñu borom boole yàlla may ñu tey war ko ay ati ati ati ati ati ati at yu bëree di fi ñëw di fi ñëw a ñëwaat yàlla na ko suñu borom def ci barke Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam kontaan nañ tey dafa neex duñu kontaan dafa neex chance gën licence benn par benn on a pris notre temps on a appelé tout le monde ici te nag ku seetaan vidéo bi rek neel amin amin ñëpp fii moom ñëpp moom tey ziar deux fois deux fois vingt une heure et minuit et demi waaw léegi nag luñ fi luñ fi ñaan rek yàlla nañ ko yàlla boole yiw bi yëpp yàlla nañ ko suñu borom boole lii rek lañ si bëggoon ndax amuñu ko dul sàng bi nag moo ñu gënal suñu bopp moo ñu gënal lépp mooy